la question donc pour vous rappeler que ci landerneau politique booy jël nit boo xam ne dafa constant dans ses démarches et dans ses convictions da jël le président Bougane parce que malgré tout ce qu'on peut lui reprocher dem na ci dialogue bi demul ci dialogue bi choix la et au niveau inter nekkul moom moo jël la décision de ne pas y mais instance su parti bi instance su mouvement bi ñoom ñoo dajaloo joxe seeni décision moom mu appliqué ko notamment tey la commission des sages bi ñu dajee dañ ni eh, dialogue national bi ñi fa toog yëpp ay pays pi lañu maanaam euh, des personnes du autre génération lañ ñooñu. waruñu ma personne d'une autre dama dama ma ñëw même ma ñëw <laughs> yow tu me parles d'exception man dama lay wax principe dama lay maa ngi ñëw. Euh, ñoo xam ne tey ñoom ñoo war a décider ci yow ci sa avenir ci sama avenir te Sénégal tey fi ñu toll boo jëlee la population active ou bien la population dans sa globalité. plus de 70 pour cent des Sénégalais ont moins de 35 ans. 75 hmm? 75 pour cent ont moins de cinq ans ñi nga fa gis ñoo ñooñu tey bu ñu toogee 30 minutes da nga ci gis ñoo xam dañuy commencé di nelaw te depuis Senghor. dégg nga depuis Senghor. Moussa Moussa non non non balaa nga àggale balaa nga àggale je ne ma eggali xaaral ma eggali. je ma eggali. depuis Senghor. mu ngi def dialogue su Abdou Diouf def nañ dialogue su Wade def nañ dialogue su Macky on a lancé comité de mais dialogue yooyu yëpp bu ñëwee la ciy conclusion moom dafay wax ni dinaa xool li ma ci arrangé ma appliqué ko la ma ci arrangé wu ko def et puis invitation bi mu lancé opposition bi c'était inélégante de sa part parce que loolu la wax ku bëgg nga ñëw ku bëggul boo geddee sa yaay moom moo aye maanaam tey boo dégloo ñuy toog ci plateau yi sax ak ñi nga xam ne dañu dem participer ji lan lay wax damay dem participer ji pour mën a bokk maanaam tey épée de Damoclès la jël teg ko ci yenn bopp opposants yi ñu leen da di ñëw ngeen dialogue su ngeen dialoguee ñu bokk ma boole leen su ngeen ñëwul dialogue gi yéen a gedd yéen a xam seen yaay moo aaye maanaam tey benn langage codé la bu muy wan nit ñi ni ñi bëgg bokk ci élection yi ñoo leen ngeen toog waxtaan ak ñoom te jàpp ni dans une démocratie ci participation ci élection nekkul le président sortant moom mooy choisir les candidats à la présidentielle te dama jàpp nii beneen nga xam moom nga toftal ci sa question mooy waroon nañ dem participer ci élection yi pour lañ ñuy dem di participer ci élection yoo xam ni ki nga xam ni mu moo koy initier dialogue bi mhm. dialogue boo xam ni ñi koy initier moom daanaka jeexal na ba pare te buy lancer les bases wala muy teg li nga xam mooy terme de référence yi lan la war a teg ci nota bene moom mooy élection yi du ñëw du bokk bi mooy sama second et dernier mandat comme ni ko bindee ci livre bi parce que tension politique bi ngay gis yëpp loolu moo ko bindi mais point la bu ñu waxtaanee si dialogue euh, boobu. question boobu waxtaan. loolu amul sax waxtaan c'est exclu que lu dañ ko exclu ci suñu domaine de définition beneen bi moom mooy choisir ay ay candidats yi war a dem ci présidentiel loolu du ressortu président de la république beneen bi moom mooy la question du parrainage parrainage bi CEDEAO la mu ci wax ak la nga xam moom la ciy digle ci ay recommandation yu ñëpp gis nañ ko est-ce le président Macky Sall accepte euh, appliqué na ko mais appliqué wu ko. daf ko téye toujours mu nekk benn lam affilée pour mu minimiser parfois certains discordants mu yenn opposants radi radicaux yi beneen moom mooy tey ñun dañu nekk dans une démarche boo xam ni dañu jàpp ni nous incarnons lu nouveau type de d'homme politique ñi nga xam dañu jàpp ni ñun ñoo war a indi rupture ci Sénégal ak ni ñu koy doxalee rupture bi moom mooy la sur la base de notre programme parce que le président Bougane dafay wax ni j'ai parcouru lu Sénégal de fond en programme bi ma teg sax dafa jóge ci écoute bi may écouter sénégalais maanaam programme bi dafa refléter l'aspiration de sénégalais te bu ngeen ci bëggee xam dara fal leen ko bu ngeen ko falee ngeen xam ni le programme moom mooy programme bi soppi Sénégal